bon day commencer ci sabab mais dafa am tamit yoon parce que boo jógee ne da ngay def euh, GP euh, dafa am loo xam ne euh, mooy nga être sûr que voilà de te de tes allers et retours c'est-à-dire mu wóor na la ni mën nga tukki avant ngay def sa publication comme quoi que nii yaa ngi jóge France wala beneen dëkk wala yaa ngi jóge Sénégal Sénégal pour beneen dëkk mu wóor na la ni di nga dem donc être sûr que ni li ngay publier ci loolu effectivement ngay dox du lépp laay yóbbu lépp lu lu lu yoon daganalul duma ko yóbbu <laughs> ku nekk dégg nga li fi xew fi mu nekk nii donc lépp lu yoon daganalul duma ko laal te samay client tamit ak ñi ma xam xam nañ ko j'exige aussi que sama cliente bu ma indilee bagage ma ubbi ko xool ko même bu fekkente ne da nga ko yóbbu marché ñu scotché ko def ko voilà vraiment euh, cassé ko def ko yépp man su ñu yegsee ba si man li may njëkk a def mooy woo la téléphone bu fekkente ne réceptionné wu ma ko personnellement woo la téléphone wax yëgal la ni maa ngi ubbi bagage bi photo ko yónnee la ko ma ma wan la ne lii nga ma yónnee ma vérifier ko ba mu doy ma aussi ma doog jël engagement yóbbu ko. waaw bari na risque parce que euh, lu nekk ma ngi am na ñoo xam ne dañ lay yóbbante te yàlla tax parce que euh, voilà euh, risque risque yëpp mi ngi si risque nga nga réeral bagage yu jàmbur mi ngi si risque euh, ñu jox la lu daganul nga ñëw ba aéroport am fa problème mi ngi si risque ñu jëndaloo bagage nga indi ko te doo gis ki la ko yónnee wala ki la ko yónnee boo ñëwee ba ci moom jox ko ko te du la fay sa xaalis tamit mi ngi ci donc euh, risque bu nekk daal euh, voilà mu ngi ci comme voilà comme liggéey yëpp GP <laughs> moom voilà am na ay risques yu bari. dama tiit dama tiit en même temps euh, doomu aadama jaaxal ma parce que je me li nga bëggul ku la ko def wala ku ko def sa rakk wala sa mag wala tout simplement koo xam rek waroo ko def doomu jàmbur parce que tuuxi doonu boobu ñu ko dugal xamuñu fan la jëm. ñun ñëpp ñu ngi partagé photom di di di di jéem a sensibiliser nit yi aussi pour ñu jàppale ñu ñu partagé pour mën a teg ci loxo nit ki ko jox marchandise boobu mu yóbbu ko euh, ngir ñu mën ko bàyyi parce que la pauvre xamul sax lan moo xew donc euh, j'imagine euh, ñuy massawu aussi ses parents di ko massawu moom mi nekk ci ci jafe-jafe boobu parce que c'est sur que bëggoon na lu mu ci lu mu ci fortaatu pour arrondir ses fins fin du mois parce que quand je dis fortaatu il faut que les gens comprennent que ni liggéeyu GP du liggéey booy commencer tey am ci àddina ak li ci biir mais waaw boo duggee dinga nga xam chéri soo duggee di nga gis ni GP ni ko nit yi jàppee ak ni mu ni surtout situation sanitaire bi fi mu toll tey la gën a metti tey la gën a metti billet yi tey la gën a cher di nga def sa test Covid de France doo fay certes mais fii balaa ngay génn dëkk bi di nga def sa test Covid 40 mille francs si jamais nga raté sa vol ou quoi que ce soit di nga ko defaat parce que il faut que euh, test Covid bi reste dans les 72 ça pendant les 72 heures kese la valable su passé loolu voilà il faut que nga defaat ko donc euh, boo xoolee billet avion sa transport sa coono sa njaboot gi ngay bàyyi mu nekk Dakar wala mu nekk Sénégal ngay dem di fanaan feneen euh, dafa metti dafa cher te li nga ciy génnee euh, daanaka ça couvre à peu près say frais mais comme li olof di wax naan xëcc bu daggul dikk. Oh? Mhm. Euh, waaw di ko mas saw ñëpp non ñi ko xam ak ñi ko xamul ñi ko xam euh, ak ñi ko xamul ñëpp la metti man sama téléphone depuis depuis xaw ma kañ noppalikuwul tu fait attention il faut vérifier je reçois des message comme ça su ma yeewoo gis nga ci sama statut d'ailleurs tey dama yeewu di leen remercier ñoom ñëpp parce que ku ci nekk yaa ngi bàyyi xel ni ah Aïcha day def GP dafay def li na moytu euh, ki ne moom euh, li ko dal euh, dafa sax weesu metti ban message ngay ah ñu jóg taxaw ñu jëli seen doom defi pexe parce que am na loo xam ne soo xoolee nit di nga xam ndax lii moo ko def wala defu ko hmm? donc boo xoolee Fatou Kiné boobu gis ni ñëpp jógee pour taxawu ko di nga xam ne kii laalewu ci taxawu ci bénéfice du doute la war a appuyer ci bénéfice du doute boobu jëli suñu doom